نحمده ونشكره على ما أنعمنا من التوحيد والتصديق بالرسول الوحيد سيدنا ومولانا محمد الفريد عليه وعلى آله وصحابته أزكى سلامي الوحيد واشكر كلامي واحمد كلامي بلا ملام ولا امترائي سدد لساني نوير جناني صفي أماني وزد برائي ربي أعني العبد li yutimma al qasda asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki silatu rahim yi askanu jaxate ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di ñaanal ñëpp jàmm di siyaar kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci biir ñëpp ñu ci jiitalee sëñ mi jëwriñ ji rek a ngi ci biir ak eh, sëñ Omar Jaxate mi nga xam ni moom lañ àndal ci xarala gi ak sëriñ Seexuna day mel ne bàyyiwuñ kenn rekk ñu ngi siyaare ñëpp di siyaare it borom xam-xam yi nga xam ne it ñu ngi ci biir te di leen jéggalu it bu baax a baax a baax lépp loo xam ne wax nañ ko fi rek te waxuwut mbaa mu desee mel na mu war a mel ngeen xam ne rek sunu yéene rek moo doon defe ko nam war mel waaye nag matadik doomu aadama ak néewuk xam ak eh, suufeeg dégg moo nu ko yobbe kon bu boobaa ngeen dégg ko seen xam-xam bu rafet ak seeni teggin yu mat ni nga xam ne nag noonu lañ ko doon waxee jamono bi yëpp te mooy seen wëpp wi nga xam ne eh, mooy pencum lislaam ngeen di ci ànd ak seen mbokk abul fadil jaxate wala soxay bi jaxate booba tey nag ñu nekk ci waajtaay bi tey jii doon jotaay bi nga xam ne mooy jotaay bi ci njëkk ñu ñaan sunu borom mu defal na ci tawfiq yi mu àgg te dara bañ koo dog euh, jotaay bi nag ni xam ne noonu lañ koo waajale mooy am pas-pasu lépp lu soxal lislaam rek fas yéene nañ ko waxtaane fii ci penc mi lépp loo xam ne moo soxal lislaam lislaam nag daa yemul fenn ndax dundug doomu aadama lépp lislaam mooy li ko tënk lislaam lu nosu la loo xam ne li fi indi doomu aadama diir bi fi nekk ba ba muy wàccu liggéey bépp yëngu-yëngu bu muy def lislaam joojee moo ko tënk lislaam jooju nag nga xam ne moo ko tënk am lu ca jiitu te mooy nit ki war a xam yàlla suñ boroom mi ko sàkk indi ko fi ginnaaw bu ko xamee xam leneen lu dul yàlla it nag ba noppi xam lenn lu nekk fan la war a féete mu féetale ko foofa ba nga xam ne dootul jaxase mbir yi xam ki ko bind ak ki nga xam ne dafay bokk nekk ndoog moom muy ab jaam xamit ci biir jaam ñooñu ni seeni daraja wuute te muy am na ci ñoo xam ne ay yonent lañ alayhimu ci ñoo xam ne ay malaayika lañu waaye it ci biir nit ñi am ñoo xam ne ay wàllu yu lañ la doon am ci ñoo xam ne ay nit ñu baax rekk lañuy doon am ñoo xam ne ci biir nit ñu baax ñooñu seeni taxawaay wuute kenn ku ci nekk nga xam mooy kan xam noo war a jëflanteek moom loolu lépp daa doon loo xam ne nit ki bu ko xamee rek dana mën a xam nan lay mën a dunde ba du bokkaale yàlla kenn kenn ku nekk it mu man laa bañ a jaxaseeg sa moroom su ko defee it moom nit ki moom mu mën a xam wàccuwaayam moom ci jëmmi boppam mooy kan xam ak njabootam ñi nga xam ne ñoom la njaboote bu boobaa mu mën a xam lu ko war ci njabootam googu loole lislaam ko wax te njaboot googu soxna jiitu ca wala bokk bokk na ca ña ca jiitu doom ñëw ca ba ci ay rakk ak ay mag ak rek da cay am na wet goo xam dañ cee daal di dugge ay goy jur lenn lu nekk mu xam lu mu doon ca moom ak ban wàccuwaay lay am ca moom mu mën a xam nan lay jëflante kooka su ko defee mën xam jëflante boobee lu ko ca lislaam sant bu boobaa bu ko defee rek mu daal di mucc ayib waaye bu xamul lu ko ca lislaam sant rek jafe-jafe ba mu koy daal di jural mooy day jëf ba noppi jëf ji yàlla ni ko ah jëf ji baaxut ndax méngoowut ak ni ma la ko sante ngir loolu bañ a am nag sunu penc mii lañuy ñuy daal di indi loola nag waxtaane ko ba lenn lu ne nit ki mën a xam lu ko ca lislaam sant ak nu ca war a doxe waaye yemul ci yooyu jëflante yi nga xam ne mi nga am ci diggante nit ki ak ki nawleem ci àddina si muy tasanteeg ñoom ci mbedd mi wala mu dëkkandoo ak ñoom ci gox wala mu bokkandoo ak ñoom luye wala sax mu di leen jàngal nekk na fa ak ñoom wala nit kiy jàng ci jëmmi boppam nu muy jëflante ka koy jàngal xeeti muamalaat yooyu yëpp nga xam ne lu ci ne lislaam tënk na ko loole it ñu di ko waxtaane fu ñu mën a toll ba ci mbirum politique fa ca nit ki war a tàmbalee ak fam ca war a yem ak la ca lam ca war a def lépp daal lu aju ci lu mel noonu rek lislaam moom napp woon na ca kon loolu nag moom lañu dajale tudd ko pencum lislaam bis bu set rek bu ñu egsee nag daal di ciy indi dara tànn ko fas yéene waxtaane loola mu mel ni nag tey jii liñ ci tànn fas yéene ko ko tàmbalee ngir euh, dagaan ci barkeb loolu mu barkeel waxtaan wi ba lu ci nit dégg man koo jariñoo liñ ci taamu tey jii mooy tawxiid ndax moo jiitu ci lépp lu mën a doon Eh, rawatina lislaam ji nga xam ni ci la ñu ne tawxiid nag eh, doon lu amaa am solo loo xam ne eh, li ko sëriñ bi di waxee rek lépp lu mën a doon tawxiid mën na laa wutu mën na laa représenté waaye lenn mënu koo représenté kon lu mel noonu xam ko dana dana baax ñaan nag sunu borom mu dimbali nu ci ba lépp lu ci nit dégg jëfe ko yomb la te boo ko jëfee it nga mën koo jariñoo ci barkeb seexul xaddim tawhid nag day loo am am solo ci dunduk doomu aadama jëmmi jaam bu mu mën a doon moo xam ab jullit la moo xam du ab jullit tawhid ci jëmmi boppam mooy tax nit kooku di fi dund ñu mën a xam ne nit la mi ngi dundu am nag ruu bu loolu nekkul ca moom dundam gi amatul njariñ moo ko dee ñooyam mbaa ko dee ko fi solo day mel ni ku fi nekk rek waaye nag ca dëgg-dëgg nekku fi moo tax sëriñ bi day wax naan ka annama tawxidu fi zal xaali ruuxun li diinillahi zil jalaali wa jismuhu al islaamu wal ixsaanu libaasuhu bu fekkoon dañ koo jëmmal muy jëmm ju taxaw ngir mu mën a dund ba ñu mën a wax ne mi ngi dund di dox ay soxlaam di wax di lekk ka naan di yëg luy neex luy naqari bu boobaa lay nekk ca moom ba loolu mën a am ruu googee nag buñ ko doon xool ci biir lislaam mooy tawxiid ku ne xam na ne nag nit boo ko solo doon yére yi gën a rafet tegal ko muy lekk bu fa ak ruu nekkut it du benn njariñ boo fa bàyyee diir bu gàtt rek day daal di tàmbalee xeeñ kon lay tax ñu mën koo jariñoo mooy ak ruu sëriñ bi it daal di waxaat ba tey ne euh, lépp loo xam ne doomu aadama bi dana ko denc mu jëm ëllëg ci biir bàmmeelam de tawxiid moo ci gën bu dekkee ca biir bàmmeelam tawxid képp la mën a gis mu mën ko faa jariñ ndax moom dañ ko fay laaj bu bu bu bu dekkee ba buñ ko dugalee ci biir bàmmeel ba it laata moo dekk nekk gam fay nekk it ak njub moo ko fa mën a jariñ te njub ga ko fay jariñ it bu ñuy wax njub loola dëgg-dëgg mooy tawxid ndax lépp loo mën a def te tawxid amu ca ak njub mënu caa am moo tax mu ne lakin nama tawxidu xayru zuxri li shaxsi fil xabri wa yowman nasri am li gën ci lu nit mën a denc ci bàmmeel daal ak bisu pànk ba mooy tawxiid daal di ciy teg ndax moom de mooy xam-xam boo xam ne beneen bu mu mën a doon moom boo ko amee te amoo ko du la amal solo mënu laa jëriñ waaye tawxiid mooy beneen xam-xam boo mën a ñàkk moom boo ko amee rek mu mën laa jëriñ li annahu an xayrihi yuxni wala bidoonihi yufiidu ilmun musjala kon moom doy na yépp waaye benn mënu ko wutu tawxiid it am ko mooy tax jullit bi ay mbiram di mën a jàppandi bari na gox boo xam ne ñu ngi dox ci àddina son lool lenn lu nekk wala askan wala aw nit bëgg mbir mu jafe leen lool te fekk ne ñàkk am tawxiid yu dëgër rekk moo ko waral mbaa ñu nekk sax ci xeex yu metti xëcco yu metti te loolu lépp rek ñàkk am tawxiid bu dëgër moo leen ko yóbbee bari na it ñoo xam ni danañu bay ba sonn te mbay ma tubarkàlla nam war a demee duna ko demee loolu lépp rek ñàkk tawxiid bokk na ci li koy sabab euh, ni ko suñu borom di waxee naan walaw anna ahlul xuree amano wattaqoo la fataxnaa alayhim barakatin min alsamaai wal ard walakin kadaboo fa axasnaahum bima kaanoo yaksiboon bu fekkonte nii de benn gox waa ñooñu gox boobee àndandoo nañ gëm yàlla ba moytandiku lépp luy bokkaale sun boroom ma ubbi leen bunti barke yi nekk ci asamaan yépp ñuy wàcce ay xéewal ci suuf si waaye nag ñàkk gañ ñàkk mën a matal loole ma leen sant moo tax ma jàpp leen ci loole nga xam ne fàggu nañu ko kon dinañ ca xamee ni bëgg ab nawet ak bëgg ay mbir yuy dox ak yu yëpp bokk na ci yi ko gën a mën a mottali mooy tawxid ba ci sax xëccoo gi ma waxoon léegi ay nit bu ñu amee tawxid bu dëgër gëm ni yàlla suñu borom mooy def mooy dindi mooy rey mooy dekkal gëm ni lu waay am rek suñu borom moo ko jox boo boobaa xëccoo dootul am ndax dangay ngay gëm yàlla ne lii kat mooy li neex yàlla maadaama moo neex yàlla rek amatuma lenn lu ma ciy def wala lu ma ciy sàkku wala lu ma ciy jéem a dindi ndax jéem koo dindi du tee loola am tawxiid nag buñ ko waxee dinañ leeral jëmmi baat bi mooy lan moom tawxiid ci boppam ci làkk bi ñu nee mooy wéetal dara dinañ ko wax imaan te mooy gëm waaw dinañ ko waxit tawxiid tawxiid nag mooy wéetal wéetal mbir mépp mbir rek boo ko beree def ko lenn rek wéetal nga ko wéetal nga ko mbir mu mën a doon boo ñëwoon daal ni cey sama waa ji daal ëmut moroom daal di koy ber moom jàpp nga ni kon kenn naw la wut ak moom wala nga ni kër gi génn kër képp la fi moo fi dàq bu boobaa loola it wéetal nga ko kon loolu rek mooy taw tawhid ci loxo wi yem bu ko doon wax ci aw làkk nga xam ne day ànd nga dàq dara nag dàq lenn saxal lenn ne nangam ñi ñëpp daal amuñu solo waaye kii rek am solo loolu moom mooy wéetal nga dara loolu bu ñu ko waxee ci làkk loolu waaye bu ñu ko waxee ci charia nag moom tawhid mooy noonu rek da daq dàq lépp lu dul yàlla saxal yàlla faman yakfur faman yakfur bi taaxut wa yuminu billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fi saama la kon loolu mooy mooy mooy mooy wéetal suñu borom nga xam ne lépp lu dul yàq yàlla dàq nga ko daal di wane nag yàlla rek moo fi nekk loolu la wax laa ilaha déet benn buur boo xam ne jaamu ga lor la wala jaamu ga njariñ la ñàkk gaa jaamu lor illallaahu budul yàlla lool mooy tawhid mooy saxal nga ni yàlla rek mat a jaamu jaamu ga am njariñ ku yàlla it ab jaam la kon loolu mooy buñ ko waxee rek mooy wéetal yàlla wéetal yàlla googu nag danga koy wéetal ci li ñuy wax rububiya wéetal ko ci uluhiya wéetal ko ci al asma wa sifaat loolu nag dinañu leeral moom mooy lan rububiyya mi ngi jugee ci rabb rek uluhiyya mi ngi jugee ci allah mooy kan moo war a tudd rabbu kan moo war a tudd allahu al asma wa sifaat it mooy melokaan yi nga xam ne yàlla melokaanu na ko yooyu yëpp nga wéetal ko ci xam ne mel nam yàlla rek moo mel noonu keneen melu ne kon mu mel ni euh, ni nga xam ne noonu lañ ko waxe mooy euh, jëmmi euh, tawxid ci aw làkk ak ci buñ ko dee wax ci charia ginnaaw bi loolu jàllee nag jëmmi tawxid ci boppam borom xam-xam yi dañ ko boo dajalee ñëpp dañ koo xaaj ci dëgg-dëgg ñaari xaaj mooy tawxid boo xam ni dañ koy jàng di ko xam ak boo xam ne dañ koy dund euh, doog ko mën a am booba ak dund moo ci eggale nit waaye deesu ko xam nii rek ci ay téere dong dong dong loolu moom la Sëñ Tuubaa di wax naan euh, lakin nama tawxidu fi euh, wa baadu fat tawxidu boog lil xismay ni min mun xasimun wa saara tawxiday ni fa awalun takallumun wa saani taaruf laa tunkiran bayaani ñaari tawxid am tawxid benn bi nag mooy takallum bi nga xam ni nit da koy jàng di ko xam man ko wax ñu xam ko dégg ko bi ci des nag mooy taaruf la mooy mooy li ñuy tudde xuruf euh, mooy ñi nga xam ne dañoo xam yàlla suñu borom moom lañ leen di tudde muy xaarifoona billaahi yi booba eh, mel na ni lu ñu dund la moom la mutasawifoona yi di xamle waaye nag tawxiid bi nga xam ne mooy bi ñuy xam di ko jàng boobu nag moom lañ jubloo waxtaane fii boobu tawxiid nag boroom xam-xam yi dañ koo xaaj ñetti xaaj mooy li ma ko waxe woon léegi xaaj benn bi mooy eh, tawxiidul rububiya bi ci des mooy tawxiidul uluhiya bi ci des mooy tawxiidul asma wa sifaat kon ñett yooyu dana aaje ñu xamle ko ba kenn ku ne man koo xam tawxidul tawxidul rububiya eh, dinañ koo xam ci ñu ko dee xamle mooy eh, baatub rububiya mi ngi jóge ci rabbu baatub rabbu rabbu nag mooy ki nga xam ni mooy dundal nit ñi di leen rey moo leen di dekkal moo leen di dundal di leen wërsëgal tamit ci lu ñuy dunde loolu nag mbindeef yi ñëpp ci lañu ñu aju wa ma min daabatin fil ardi illaa ala llahi rizquha wërsëg yooyu yëpp ci kooku lay aju mooy borom turu woowu ñuy wax euh, rabbu loolu la ñuy tuddee bi rububiya su ko defee kon ni nga koy gëmee mooy dangay fas ci sa xol ni yàlla ku wéet la moo bind mbindeef yi mooy buur bi leen moom mooy soppax ndiku mbir yi lu ko soob di rey di dekkal di xaaj wërsëg yi di leen wërsëgal lépp ci moom suñ borom subhanahu wa taala ci la aju ni ko waxee ne allahu xaaliqu kulli cheyin wa huwa ala kulli cheyin xaaliqu wa huwa waa suñ borom mooy ki bind lépp te lépp it ci moom la aju ci moom la wakkirlu moom suñ borom subhanahu wa taala daal di waxaat ni moom suñ borom de mooy ki nga xam ne moo leen defaral suuf sii muy ab lalwaay waaye moo leen defal asamaan si it mu tabax ko ba mu dëgër mooy wàcc ci asomaan si ab taw di jën ci taw boobee ay gàncax gàncax googee wërsëg di ca mën a juddoo bu ngeen ko bayee ba noppi jaay ko wërsëg mën caa juddoo kon bu leen wutal yàlla na te xam ngeen ni yàlla amul ndenn loolu ma ngi ci suuratu baqara allazi jaala lakum min al ard astaghfirullah allazi jaala lakum al arda firaasan wa samaa binaa wa anzala min as samaa fa axraja bihi min athamarati rizqan lakum fala tajcalu lillahi andaadan wa antum taalamuun kon loolu mooy mooy mooy mooy tawxidu ar rububiya tawxidu rububiya nag wala rububiya ci jëmmi boppam dafa am ay melokaan yoo xam ne dafa am ay melokaan yoo xam ne day daje ci doomu aadama bi mu doo wala boog dafa day dajaloo ci jëmm bopp maa ngi jéggaloo mu doo ko mën a tudd rabbu ndax bu ñu waxee lii ba noppi nit mën naa jóge fële daal ne man la ndax man kat mën na maa rey man na ma dekkal ni ko naafiq ba doon defee te muy namruus euh, réew ba dof ba muy wax yonente yàlla ibrahima naan ko ibrahima naan ko rabbi allazi yuhyi wa yumit mu naan ko ana uhyi wa umit di di def yooyu muy def euh, te te mu jaar ak moom jaar ne ko inna allaha yati bi samsi min al masriq fa ati a min al maghrib euh, fa buhita alladi kafar mu daal di eh, gàccewu kon nag ngir kenn bañ a mën a taxaw xëccoo loolu ak suñu borom borom xam-xam yi dañoo wut ay melokaan daal ne melokaan yii kat kum daje ci moom kooku la ñu war a sañ wax rabb kum daje wut ci moom même bu ko dee woowee ba it mënee su ko tuddee rabb muy ay lay yu leer melokaan yooyu juróom-ñeent melokaan la sëriñ bi wax na ko ci téereem boobu di eh, mawaahibul quddus ñeent melokaan yi nag wala juróom-ñeent melokaan yi nag mooy. kartam ngay jël nga xam ne taqagut ci jëmm da ngay amal dara bala nga ne naam ne fa kartam ak euh, bëgg wala boog nga ne ak man ak bëgg ak it euh, ak dund euh, ak xam ñeent yi melokaan yooyu boo ko taqalee ci jëmm nga ne aji man la aji namm la di aji xam di kuy dund booleen leen boole muy juróom-ñett nga benn boole ci benn muy wax it te muy kenn juróom-ñeent melokaan yooyu bu dajee ci jëmm bu boobaa mën nañoo wax ni kii mooy rabbu li tax loolu am nag mooy rabbu mooy mooy xudra nit kenn mënta saxaal dara dañ la xam ne la mooy kii rey kii dekkal kenn mënta amal mbir mukk di sottax ndiku te amoo man-man ba fokk da ngay man loola donc bu njëkk waaye boo ko mënee te bëggoo ko it doo ko def li ngay man da koy bëgg muy iraada beneen bi ci des mooy xam fokk nga xam li nga war a def lu mu doon bi ci des mooy dund ku dee mënta def dara ndax daa dee waaye it bu loolu amee nag mu taq ci jëmm gi dooru mën a mën a nekk beneen bi ca beru nag mooy waxit te doon kenn noonu la ko waxee ca bayit yi nii summa rububiyatu aydan tuxraju min hazihi sifaati hadduha waju waju mooy juróom-ñeent wahiya xudratun iradatun kada ilmun xayaatun raahi zalika wa daa wa kawnu dil jalaali xaadiran murid wa aliman xayan wa kawnuhu waxid yooyu mooy juróom-ñeenti melokaan yi mooy ruuba bi am koo dégg mu naan la maay yàlla rek natt ko foofu boo ko fa nattee rek ko daaneel xam ne du moom mu des ñaareelu xaaj bi te mooy tawhidul uluhiya tawhidul uluhiya moom it liñ la ko waxee woon tur mi ngi jóge ci allahu allahu nag mooy ismu zaat ci sun borom subhanahu wa taala euh, tur wi jëmm jëmm ji tur woowu mënuñu ko tuddee kenn kudul ki nga xam ne moom lañ war a jaamu buñ ne al uluhiya mooy ki nga xam ne dañ koo war a wéetal ci jaamu gi ndax mel na moom képp lañ war a jaamu moom lañ war a ñaan moom jëmmi boppam jooju moom suñ borom lépp lu ñuy jëfit moom lañ ko war a jëmale bañ koo bokkaale ci lenn bañ koo bokkaale kenn noonu mu ko waxee ni faman kaana yarju liqaa rabbi falyamal amalan saaliha wala yushrik bi ibadati rabbi ahada kooku dañ koy ber ci lépp lu mën a doon kooku nag ku mel ni ay firaxaw nag yooyu taxawan nañ fi di tuddoo lu mel noonu waaye nag boroom xam-xam yi li ma wax léegi rek sàggan nañ ci wutal nañ ko ay melokaan melokaan yoo xam ne comme dajewut ci moom bu ko tuddoo it xam ne day wax la ko neex waaye mënu ko doon yooyu melokaan fukki melokaan la ak e, benn fukki melokaan ak benn yoo xam ne ku mu dajewut ci moom bu ko tuddee boppam it dañ koy radd delloo ko ko te xam ne mënta nekk boo xoolee fukki melokaan yooyu ak benn nag daje woowut ci kenn ku dul yàlla sa borom loolu it mooy yan mooy ak am akuk jiitu muy ñaar des fi maanaam jiitu goo xam ne tàmbalee woo fenn mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy des fi te dooyam fenn mhm. ñeenteel bi mooy wuuteeg mbindeef yi ñu xam ñeente ngi noonu juróomeel bi mooy manal sa bopp lépp te soxlawoo kenn loolu mooy mm, eh, juróomeel bi léegi nag nga jël dégg ak gis ak wax yooyu di juróom-benn boo ko taqee ci ci jëmm eh, muy yeneen i juróom-benn boo ko boolee loolu mooy fukk yi ak benn. moom it sëriñ bi wax na ko ci waxeen wu leer nañ ñi ca eh, téereem boobee di mm, tasawudu eh, wala boog mm, mawaahibul quddus moom lay wax naan sif eh, summal uluhiyatu minha tu'rafu adaduha ayun lada man yu'raf ani wujudan qidaman summa baqa summa muxaalafatuhu ma xalaqa summa xiyaaman summa samaan wa basar summa kalaaman jalla an hasril fikar wa kawnuhu aydan samihan wa basir wa mutakalliman bima bihi jadir waxin wa moom na mu me na mu yelle ca moom ak dégg gaag yooya noonu rek la demee li tax loola it moom it mata leeral te mooy euh, bala nga ne naam ne fa ma ko waxee woon léegi am am day jiitu mënoo fee nekk ne dañ laa war a jaamu te amoo fokk yàlla day am kon yàlla am na jiito te tàmbalee woo fenn keneen ku yàlla am na fu mu tàmbalee dañ naan at sàngam la jamono wala waxtu sàngam wala jamono sàngam mhm. waaye nag li ci yéeme mooy moom dafa am waaye tàmbalewul fenn ba noppi maam dafiy des moom yàlla te duy yam fenn ku moom am na foo desoon wuuteeg mbindee fi keneen ku dul yàlla suñu borom am na koo nirool am na askan woo bokk am na xeet woo bokk manal sa bopp lépp keneen ku dul yàlla am na waxtu woo xam dañ laa manal dara boo fi yàggee am na luñ la manal dara ndax boo wàccee liggéey rek ñu manal la waaye dégg it di ko def ndax boo mënta dégg mënoo xam ku lay jaamu di wax ku ku leneen di gis ku mënta gisit mëneesu ta eh, kooku ak ak lottu la ak manqué la te yàlla daa mat waxit noonu waaye nag waxit loolu lépp day doon gayellu ca moom kon loolu mooy li nga xam ne boo dajee ci jëmm ñu ne kii mën naa tudd yàlla loolu nag boo ko demalee ci sam xelum bopp rek mën ngaa xam ba xam xam nga kenn ku mel noonu déet moo tax Euh, gis nga sun borom lañ waxoon ca kaw te wax it doon gi muy doon kenn rek lay doon yooyu yëpp da nga ko ciy wetal ndax law kaana fihima alihatun illa allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arsh ama yasifoon yàlla kenn rek lay mën a doon ndax bu fekkoon yeneen yàlla am na fi yudul moom bu boobaa li muy def yàqu ndax da cee daal di diisoog kooka wala mu bëgg def lii kenn ko duma def lii te bu boobaa dañuy tolloo doole boobaa buñ mënta bokk lenn luñ def rek dañuy daal xëccoo te buñ xëccoo mbir ma daal di yàqu bi ko ñetteel mooy tawhidu loolu moom mooy bépp melokaan boo xam ne indi na ko ci alxuraanul karim wala tur mbaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam melale ko ko nga saxal ko wéetal ko ci xam ne tur woowee bokkalewu ko kenn bu la nee yàlla aji dégg la nga ne gis nit kii kat day dégg déggu yàlla ak déggu nit bokkut ndax nit am na waxtu boo xam li muy dégg du ko xam te bu fi yàggee tuuti ak déggeem wàññeeku te yàlla suñu borom déggam googu moo tax du moo tax mën naa nit da nga naan dégg ñu nit man nga koo wax ne saamix kuy dégg la waaye yàlla saamix ngay wax te mooy dégg gi amul fenn fa mu yem waaw nit it mën ngaa nekk Touba di dégg te doo dégg la nekk Dakar di dégg li waa Touba di wax rek gox ba nga nekk yàlla nag fa mu nekk la nekk te lépp lu xew ci àdduna si ma ngi koy dégg kon dégg yi bokkut danga koy ber kon ci mboole melokaan yi mu am ba ci wax ak lépp lu ma xam ni bokkule wu ko kenn noonu noonu noonu la ñuy la ñuy loolu. moo tax mu wax ne laysa ka mislihi shay wa huwa samiul basir yàlla suñu borom amul kenn ku mel ne moom ndax mooy aji dégg ji nga xamante ni foofu sax da nga naan kon ndax sami la wax déggaa kon ak aji dégg bokkut aji dégg rek mën nay dégg tey suba du dégg loolu mën na koy firee sami waaye nag déggaa kon bi moom dégg gi day wéy rek di dem basiirit ak gisaa kon la tawhid ji nag mooy tawhid ji nga xam ne bépp yonent bu fi yàlla suñu borom masa yónni ci loolu la jaaroon wàcce wut wàccu ko noonu la doon wax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko wa ma arsalna min xablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu laa ilaha illa ana faabuduni waaw eh, yow yonante bi mosuma yónni benn yonante bu la jiitu lu dul ni wax yu woon nañ ko xamal ko ne ko amul benn yàlla budul yàlla kon budul man nanga ma jaamu faabuduni kon loolu mooy li ci li nga xam ne mooy eh, liñ ci jublu indi xam ni boo ko saxalee rek yaag yonent yi alayhim salaam yéen a bokk lenn lu ngeen daan def kon loolu la sëriñ bi di wax ca tàmbali ba téere ba di wax naan i'lam rusdan wasaa kaana ilahuna wala shay'a maha na nga xam ni sun borom amul lenn lu mu àndal ku fi an ahat àndandoo wut ak dara walaysa min shay'in wala fiihi wala fii taxtihi wala alayhi masjala sun borom juddoowul ci dara nekkul ci biir dara nekkul ci ron dara nekkul ci kaw dara walaysa min shay'in wala fihi waaw fa laysa maxlooxan doonul luñ bind wala maxsoora doonul luñ takk wala maxmoodan maxmoolan kenn yanuwu ko it wala lenn yanuwu ko wala maqoxora dara notu ko subhaana man ajaza xalxan darkuhu wa shukruhu azza wa jalla mulkuhu tedd naa tudd naa sellu ki nga xam ne nit wala mbindeef lenn lu ñu sàkk rek lott na ci xalaat ba mën a xam mooy lan lu tax loolu mënta nekk mooy li nit mën a xalaat ba xam lu mën a doon loolu day tënku ci jamono wala mu tënku ci xeet wala mu tënku ci temps te yàlla tënkuwul ci lenn ci lu mel noonu islaaluhu mislun wala zamaanu yàlla amut lu am kem lum nirool dooni xeetu nit la wala xeetu bàyyi ma yii la wala xeetu jamaadaat yii la walla lenn lum doon amut waaw du xarat xarat wala lenn waaw muy li ñuy wax afis amul lenn lu mu niroon wala zamano amul benn jamono bu mu nekkit xamante ne dañ naan ci jamono ji am na loo occupé ci jamono ji loo xamante ni loolu moo tooy toll ak sa taay ak sa sa sa melokaan ak sa largeur yàlla amul loolu wala jinsun amul xeet bu mu bokkal wala makaanu amul barab bu mu nekk waaw kon fa kullu maa yaxturu bil baali abad fa bi xilaafi zaaka rabbuna al ahad lépp loo mën a xalaat ci sam xel ba jàpp ko rek yàlla wuute nag loolu nit ki mën a xam loolu xam ni kon kooku ku ñu war a ber la ku ñu war a wuuteleeg mbindeef yi la moo tax borom téere ba di eh, yaakaar naa ah, xamatut eh, asalul masalik doon wax naan eh, wa annama al aalimu turla turran xaadisu wallahu mawjudun xadis xadimun waarisu waaw boolem lu mën a xam ci àdduna si rek lu mën a doon mooy aalam bi di àdduna lu ñu sos la yàlla rek a fi amoon te moom rek moo fi des yàlla na yàlla defal tawféexi mën a am tawxiid te gëm ko te wóolu ko te kennal ko te yaakaar ko kon loolu mooy eh, li nga xam ne moo doonoon waxtaanu tay wi ko woon ci fanweeri minute te waxtu wi mel na ne jot na sëkk ñu ngi koy tënk foofu xam naa ne sax melut ni mu war a mel waaye niñ ko wax woon ca tàmbali ba lu ci dëng rek ngeen jéggal ñu ko lu ci jub def nañ ko addiyee Sëriñ Tuubaa in uriidu illa al-islaaha mastata'tu wa ma tawfiiqi illa billah jaalana llaahu wa iyyaakum mina llaziina yastami'uuna al-qawla fa yattabi'uuna fa yattabi'uuna ahsanahu di nuyu mboolem ñu doon déglu ñëpp rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu barakaatuhu barakaatuhu barakaatuhu alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan sakartuhu liannu qad sahani liwatani bihi nafa maa fani